attention soxor kële jël na soxor kële ah oh. soxor kële daan na soxor kële daan na soxor kële daan na xale bi quatre appui la def soxor kële daan na Papa Sow junior oh la la la la soxor kële daan na Papa Sow junior premier combat de la soirée fii eh mbër mbër taxawal. yaa ngi bëre ba pare di jooy lan moo xew. lan moo xew. waaw sant yàlla bu baax. taxawal waxal lan moo xew. taxawal soxor mbër xew. waxal oh. ñoom émission bi la. waxal ñoom waxal ñoom. mënta wax. mbër mënta wax. Oh. wallaay Aïcha mi noonu. ñu bàyyi ko mu nopp lu tuuti. ñu ngi tekkil ba jàjj ma ngay consulter ay sixième ndax pare nañu gannaaw ba ñu seetee ñaari mbër niin nañu wala niinuñu diggante Bébé ak Caatu Daaru na Baol production fii ci Diourbel samedi le 15 mai ay ca arbitre suuf la na génn seen diggante Bébé Dame moo ñu won gannaaw Caatu Daaru la ñu jàkkaar lool acca ñoom ñaar daw nañu daje dóorante jagay lewaatoo attention caatu daaro dugal na ku Bébé Dame fayu na waaw kay waaw waaw dooral ma door waaw waaw Bébé ak caatu daaru deuxième combat de la soirée ayca ma noona ma noona eh Bébé mi njool la de waaye mi ngi dóor Bébé Dame ngi dóor waaw waaw Gasson waaw ñaari xale yaa ngi doorante oh attention njool mi ay laaw lay door ay Touba Dakar lay maye Bébé Dame Thiatou Darou oh Thiatou daw na yooru wante àggul Bébé Dame ak Thiatou Darou Bébé mooy njool mi eh, Thiatou bébé daam oh, oh waaw waaw waaw waaw caatu daaru daan na ko caatu daaru caatu daaru daan na bébé gàccey door gàccey daan fay na ko maa la ko wax xale ba daan na ko la ilaha illallah deuxième combat de la soirée maa la wax ki nga xamante ne mooy double waaw waaw arbitre soufflé na génn seen diggante Malaw wàcc na Malaw wàcc na Ndiol la ak Ndama su ma gisee Ndama la sama xel day dem ci Xaadim Anta Seck oh la la la la attention oh Ndama la door na yoor Ndama la jël na tànk Ndiol mi mboot na ko oh jàppante nañu. jàppante nañu o oh, Ndama laa ngay rentré ma ngay wut ngemb ma ngay wut ngemb am na ngemb am na ñaari loxom ci ngemb moom double deux am na ñaari loxom ci ngemb oh waaw waaw ñaari xale yi dañoo ñebe wante ayca ayca ay ay rëpp na deux appui eh eh eh eh arbitre arbitre de arbitre souffle na de ah moo ñu wan gannaaw Malaw la ñu jàkkaar lool gannaaw ba Double Deux jógee ca Ardo ñu faj ko dellu su waat na arbitre souffle waat na ñoom ñaar ña ngay lewaatoo waat Double Deux nag moo tuddee boppam double moteur numéro 2 waaw waaw. Double Moteur bu Rebeuss moo ko andi attention ñoom ñaar daw nañ daje ñoom ñaar daw nañ daje Ndiol ak Ndama Double nag daa war moytu jàppante bi ndax bu ñu jàppantee Malaw day jàpp te du jàpp ndax Malaw da koo sut ëpp ko relonge loolu day joué ci jàppante bi attention Double la ngay Malaw ngay dóor Malaw ngay dóor attention ah, jël na tànk ba may xale bi daal. daa dëgër attention oh oh mi bi lu mu wax aya arbitre jox na ko jox na ko victoire arbitre jox na ko victoire waaw waaw ayca Jal confiance yow yaay bras droit Assane Ndiaye borom Bawol production nuyu nan la waaw euh, Mbaye Babacar ñu ngi lay euh, di la ziar di ziar Basirou waa Wasaare ak waa kii

sama xar tamay woone saa ndox bëgg diw ma ne ko waaw doy na la mu ne doy na parce que laam noonu lay taxawee man Siteu bu ko njëkk a yóbbu Dakar dama asan jaar mu ne doy na la ma ne doy na ñun laam noonu ko taxawale la booyee nit ki dana la rusoo jox loo xam ne da nga am gàcce mais tey xool comme ay amut nit def waaw vraiment di kontaan ci di sant yàlla di bëggum sama yaay. mais mais bu toll nii gisuñu ci ténor bi nga xamante bii mooy ténoru Diourbel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 aw sama mën a boxe moo may dimbale ku ma dimbale. naa dégg ndigal. non ku ma dimbale dimbaloo wu ma. parce que Serigne Touba maa fay sama yaay moom la am sama àdduna lii moom jàllale ma ko ci àdduna bi waaw moo organisé yëpp nañ la fàtte naa ko ngañ amet cola organisé yëpp ñoo ko def ngañ jaañ amuma fayam jàllale ma li ngir yàlla vraiment kontaan naa ne li fi nekk dafa bari jaajëf groupe yëpp kontaan naa groupe Mbaye Babacar ak groupe Leewtoo bi ñëpp kontaan naa bisan loo bàyyi ganaar ñu ñël bàyyi ganaar nga <laughs> ci diggante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 soq mi saay saay la de waaye yow mooy yéen. booy soq lan moo xew. sant soq soq lu tax nga bànn. maa ngi bëgg naa la. maa ngi barke alxuraan bëgg naa la. maa ngi si jàmm. maa ngi si jàmm bu baax. tey loo bëree. billaahi. Konte rek. Konte. doomu Mburaay doomu Bambey. barke alxuraan. Mbakar maa ngi sant waa Mburaay sant waa Bambey barke alxuraan ñoom ñëpp a sonn. mais ni ko daane dafa garaaw garaanu mbel aw ma ko daane expliqué ma ni ko daane ma garaay wax ma ni nga ko daane bu pare soog a sant rek ak liñ ma def noo ko daane xam mettee na nag liñ ma def loo rek laa bëre ak MD attention arbitre dafa soufflé rek boo jot doorante booy ba daw na ko mbot na ko samp na bopp ba laa ilaaha illallaah waaw waaw ey ay bébé rok daan na ko bébé rok daan na ko bébé rok bandi la ay waay bébé rok mooy saay saay ay ca Bébé Rock oh MD. ayca Bilal Bilal ñu dem sixième komba diggante bébé Yamou Sarr ak bébé Walf oh ñaari bébé lañu ñaari bébé lañu kan moo ci ëpp daa mel ni bébé bébé Walf moo ëpp mais bébé Walf bëri nay bébé Walf bëri nay xarfa xurfa. Bébé Walf yàggal na combat bi waaye préparation bi yàgg na trop mel ni seet buy waaj oh wante arbitre soufflé na génn seen diggante ñoom ñaar arbitre soufflé na génn seen diggante ñoom ñaar diggante Bébé Walf ak Bébé Yamou Sarr waaw waaw drapeau Cheikh Senghor drapo Cheikh Senghor ñoom ñaar ñi ngi lewaatoo lewaatoo bi o oh. Bébé Yamou dóor na Bébé Yamou la ñu jàkkaar lool dóor na mais dalul waaw waaw attention o oh. ñoom ñaar ñi ngi cokaa sante Basirou Diouf borom wasaare ram Diouf a ñoxo bàyyi maa ngi la eh bay yen Bébé Walf plaqué na ko daan na ko Bébé Walf fir na ko Bébé Walf fir na ko plaqué na ko daan na ko ma yen ma yen oh doole doxul jàmm doole doxul jàmm waaye Bébé Walf mii bànd la xool ko ma ngay reculer waaye gas ma Walf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 am naa boo xamante ni itam amat seen lañ ko tudde ñëpp xam nañ kon nag amal na kon amal nga njukkal amal naa làmb njukkal waaw kon làmb mën nañoo xaar ci yow lu bari non mën nañ cee xaar xaar ci man lu bari parce que man amateur la avant tout amateur la waaw bu wér a ci làmb ji waaw ñu ngi lay jaajëfal baax na jërëjëf euh, ba Mbaye Babacar jaajëf ñu ngi lay ndokkeel bu baax jërëjëf merci yàlla na jàmm yàgg baax na jërëjëf Mbaye jërëjëf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 ah bon waaw man damaa rat. wala nee nañu ko sax ba ma si ka bokk. ay sant daal ba sëriñ sant. ay waay. dem soo aar loo aar. dem soo aar loo aar. lamb nga nekk nii. waawaaw waaw Modou Lo attan na ko attan na daanu ko maa la wax te ba Balla daan naan la daan am la jënd la kon de Modou Lo fulla ca la muy def moom tamit. mais daa dem combat bii bokk na ci combat Balla oh, oh jaxabal Modou Lo koy jéem a meer da koo bëgg a ato da koo bëgg a yëkkati bu ko mu taf ko ci jaxabal ko mbaa mu wéeru attention Bébé Balla ngay plaqué ak plaquage la sori ay waay bu ñu ko kontaan nañu ñëpp jóg nañu taxaw ey Modou Lo ngay rokos Modou Lo ngay rokos attention Bébé Balla jaxabal na ko Bébé Balla jaxabal na ko daan na ko oh technique technique la ko daane cay Bébé Balla kenn du yow Bébé Balla yaay ndaanaan oh Bébé Balla daan na Modou Lo Paris da koo caxabal ko waaw baa ngay fekk xool ngay lagg ma ngay raam ma ngay gas cay Bébé Balla xale bu ndaanaan la bàyyi maa ngi lay ziar sama xarit. maa ngi lay fay bu baax sama xarit Babacar. kar mbaa mbaa li nga sànce xeeboo ko. non xanaa bii boo ko sumee moom mën nga koy jox. non yow dañ lay ñëwal bu bees jox la. Ah? dañ kon maa ngi koy xaar.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 mais dama xam ne xale yi dañoo bëgg làmb bay boo ñu jàpp leen ndax li sponsor eh, eh, eh, sport national boo xamante ne nii wax dëgg yàlla sponsor yëpp dañ ci war a jàpp ndax wax dëgg yàlla xale yi bëgg nañ ko te dëgg yàlla xoolal ni xale yi mel kon nga xam ne tey ku leen jàppale wax dëgg yàlla roi des arènes mën a génn fu ne ku nekk mën na xalaat ne war na mën a doon roi des arènes lañ waaw. ñu xam la ngay nitu làmb bëgg làmb di dund làmb ndax ku xam be Bébé Yékini promoteur bu mag bii ma dendal xam ko sa diggante ak moom. te xam ne moom nitu làmb la yow tamit nga nekk nitu làmb euh, làmb ji tëjoon boobu ba léegi bi mu tëjewaatee lan nga yëg. Euh, kontaan trop parce que man làmb mooy sport bi nga xam ne moom laa gën a bëgg parce que lu dul lu dul làmb daanaka alxuraan du ma ko seetaan mais nag wax dëgg yàlla kontaan naa maa ngi nuyu bébé yi ki nii ak Ablaye Lam sama xarit bii ma àndal ñoom bés booy ma àndal yëpp ak Pagala ñoom. mais mais ana sama xarit ba ca kër ga. no ma nga fa di la bëgg naa bëgg naa laxaw si sa baat bi. waay waay waay waay sëñ bi sëñ baal yooyu ngay wax. mais sëñ soo amee ñaan goo may danaa la jiwtal bu ndaw yónnee la ko. <laughs> jërëjëf maa ngi lay maa ngi lay jaajëfal. kontaan naa jërëjëf yàlla jaamu yàgg. jërëjëf jaajëf. waa nag am naa fi walla fi laa dëkk heure bu ma tëggee làmb Diourbel nii lay mel. fii laa gëm ne moom fii <laughs> fi moom bëgg ma ko fu waay toog askanu Sénégal mooy organisé Sénégalais yëpp wuy si ko ay politiciens ñu natt suñ bopp après tawaski nag ñu soog a bu daam Diop xamal ko ne ko ñun ci dëkk bi ñëw le 13 juin euh, fils de Balla général Malick combat su ma jógee le 13 juin maa ngi ñëw le le juillet ces Thiès bëgg naa ko wàcce comme dóom si kàttanu yàlla. non si yàlla la. waaw. dafa mbër bu mag ñu koy wax Tanor lan lan nga koy préparé Tanor bu Diourbel. waaw am na mbër bu mag am na promoteur yu mag incha allah rabi dinañ ko wutal adversaire bu baax andi ko Diourbel tëgg ko. si kàttanu yàlla. combat fils de yu yéeme moo cay xew cinq grands combats comme d'habitude rek. dinaa la wax ne la Mor Pouy ñu koy wax Boy Pouy ak ak ak ak taxaw na Sorsu Bous ak Badou Fall numéro 2 combat yu yéeme ay caatu montagne bat caatu montagne Moussa Guy <laughs> combat yoo xam ne bu ko amateurs yi déggee dana ci gis seen bopp eh, ma ay ndaanaan jour boobu ngay gis combat yu yéeme mais ay ñu ngi ko tudde yu ndaanaan. Assane sa diggante ak lan la Xaadim Anta Seck seen diggante. mbër la woon mbër bu perte la woon dañoo xamante. loolu na ko moom non non jinax moom bu bëggee mucc day bari pax. jinax dañoo la Youssou Ndour waxan rek. dañoo man si bii boor man si bee boor. fuñ dem rek senegal yi fekk ñu fi ñu ngi gërëm ñëpp. mais nag maa ngi gërëm press bi maa leen di sant bu baax tey Jurbel tàng na lool mais ñafe ngeen ko deewoo ko ba heure bi ngeen koy wan sénégalais yëpp maa ngi gërëm nag waa Brésil waa Turquie waa Italie waa Espagne ñëpp ak may woo di kontaan si Baol TV direct bi di ma envoyé message fu ne di la wax ne pël liggéey bi nice na bas liggéey bi rafet na Xaadim Anta Seck <laughs> liggéey bi sat na macha allah ah, Babacar Mbaye non maa moom dañoo yàgg a door fii nag. moom xam na li ma koy wax. fii lañ dëkk lépp nice maa leen sant di leen gërëm di gërëm nag sama parrain yi. ci mel ni Tafa Ndiaye. Euh, Samba Ndour Serigne Mbacke Niang maa leen di sant bu baax di leen gërëm Adja Niang euh, dafa am dese. démb si guddi am dese wax nañ ma ko mais nag ma koy gërëm ndax lépp lu war ci bis bi def na ko. maa ngi koy sant mais Mara Fall. Mara Fall daa toj dëkk bi Mara Fall dafa wàcc ba muy Samba Ndour kenn du moom. borom léppay baax borom léppay baax sëñ bi mag maa ngi koy gërëm bu baax a baax a baax. sant nag sama rakk yi waa staff Baol production yi son trop am nañ yéene ñi ngi jàpp ci lépp lu may def te laaj ñu ma dara maa leen di gërëm bu baax a baax di leen sant dileen leen di leen bëggee. merci kontaan naa tàllal dóor bi saa mooy arbitre combat bi soufflé na waaw waaw Paul signalé na am na nekk daan na ko dawak moom daan na ko na ko da koo na xale bi daan na ko